asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu tënk ay baat yu gàtt rek ci waxi Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba yal nañu ko yàlla fayal amiin loolu boo koy ñaar sax doo xam lay wax ndax dañoo laabiri lool yërëm ñu lool dimbali ñu lool ngir jëm yàlla kon nag euh, yàlla fay gi fay Sëriñ Tuubaa yàlla na ko gën di ful rek saa su ne muy gën a bare rek oh. waaye ñuy fas yéene nag di jéem a jariñu itam ci ay waxam ndax lépp lu ñu digg rek lu ñu amal njariñ la moom Sëriñ Tuubaa Sëriñ ne koonoo ma am fii mi li wàcc man bi ñu yëkk mu diinaa mu ne nekk leen yéen taalibe yi di góorgóorlu ci xam-xam ngir jëmi yàlla ngir jëm ci nga xamanteni ci mom les di taxawale diine jëm ci nga xamanteni muy Seydina Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam nga xamni ko am diine ju wér da ko yore moom mooy borom diine ndax moom moom la yàlla wàcc ci moom alxuraan maanaam moo xam ni wala jamo yàlla nepp lu mu digal rek dañ ko wara def kooku an naa ko am njariñ la mu Seydina Muhammad mustaqilina ku ñu wara soxlo soxla lépp lu mu digal mo Seydina Muhammad man ataahu rasul yàlla moo ne moo ne waa ataahu rasul fa xusoo lépp lu si daa Muhammad dikk rek indi rek mën a topp leen lu mu leen indi bu leen asib lu mu leen digal rek def leen mu ne nag ci lan mu ne lu ñu Seydina Muhammad mu lu jàpp ni ci xam lu ak xamle maanaam loo gëstu ci li nga xam xamakus néew سيدنا توبا لي لو غست كي سيدنا محمد ديغلي كي يو سيدنا محمد لي نانكو خامل ناخ كينن مان تي جارنيو واه كان من مسا مس لا خام نيا مسا لا مبل كو لا بي كو كينن كينن خام لا فوكي مسا لا يونا كو خامل مو خام نا تي مسا لا ميراث لا مو خام مو خام اك لا بي رنت مو خام دا لا خام نكو من بوق إلى هناك من اللي وقت الله تعالى هذا كل جد من الله الذي جاء دينه غيما به منك غير جم كي حمل دفنا دين جم دين جم ثم دين الإسلام دين جم دين الإسلام يوم من هناك خم خم بما واحد نجي نوتكو من من أي العلم النافع ثم خم خم بعد جاي مولين واحد يبدأ سو خم خم سنين تبعين خم خم بعد جاي ما تعمل واحد mu ni mu ne laa bi xilmi lasi laa yeesu bi imaan yi mu ne nag xam-xam boo xam ne du la tool gëm yàlla xam-xam boobu amul njëriñ waaw mu ne wala islaaman xam-xam boo xam ne du la dool lislaam sëriñ Tuubaa xam-xam boobu taxul may wax wala ihsaanan bu dee xam-xam bu du la dool ak rafetal lu tax seen seen mbokk gi gën a ànd ngir gën a déggoo xam-xam boo xamante ne ban loo loolu maanaam du la du jariñ ngir gën a déggoo sëriñ Tuubaa ne xam-xam boobu amul njëriñ xam-xam bi am njëriñ day doon sa gëm yàlla doon sa lislaam doon sa lakra ah boobu mooy xam-xam mu ne walaatu farrixoo mu ni dawaamal xamal mu ni bu leen di tàqalikoo sax ci jëf-jëf ju am njëriñ jëf ji yu boo leen di tàqalikoo ak jëf-jëf ji yu mën na jëf ji yu mu ni ma at addu bi alaki teggin ndax jëf bu yiwee te amul ay teggin doo am njëriñ ne dina jëf-jëf ji yiw waaye wax wax ju ñàkk teggin ba yàq lépp jëf ji yu ak ak ak ay ami teggin mu ñaar sax mu ne wa faari xool kasal ngeen xàqali ko ak taayal taayal barawaana mbooloo ma ànd kenn ko taayal daal di yokkatloo mbooloo mbooloo mbooloo mépp ba lu ñu sumbal sax dootuñu ko àggal kenn ko taayal rawatina nag njiit lu taayal Sëriñ Tuubaa ne faman faman xamila بلا علم فقد دخل عمله فمن عمل ku jëf bila ilmin ci dul xam-xam faqad daaxa sànq na xamaluhu jëfam ku jëf te xamoo sëñ Tuubaa si jëf sànq na mu ne waman alima walam yaxmal waman alima walam yaxmal fala yantafihu sëriñ Tuubaa ne mu ne ku xam te jëfewul sëriñ Tuubaa ne du jariñ xam nga waaye li nga xam jëfewoo ko lépp lay jëriñ suñu tubaab ne fa laay interféré ba jëriñ mu daal di waxaat ni waman xalima ko xam waxam yi la te jëfe walam yete adab te amul ay teggin faqat asaa mun ko wane def na lu ñaaw am na xam-xam jëfe ne waaye daa amul ay teggin suñu tubaab ne faqat asaa ñaawal na daal di indi xatu nga ne xatu taxiinam man maa ne ba tax ma almoon daal ni ni fay fasiyatul kalam ngir dëggalal wax ni rek mënoon na ne asa way da indi batu tam fakhat faxat asa deug deug dëgg ko ñaawal la. waaw mu ne mu daal wax ni mu ne mu ne wala hiyaasu billah mu ne koo xam day jëf-jëf ci ñaaw la sëñ Tuubaa ne yàlla ni yàlla musul ci jooju jëf. wa xamee jefe amoo ay teggin mu ne deug dëgg mu ne kooku ñaawal na kooku di jëf-jëf ci yalla wal hiyaasu billah mu ne lu jar musul la lu jar musul la loolu mën a yàqal nit lu mën lor nit Sëriñ Tuubaa ni waman xalima ko xam wa xamila mu jëfe wata addab mu ami teggin mu ni faxa assana dëgg dëgg di kooku ma rafet am na xam-xam jëfe na am nay teggin Sëriñ Tuubaa ni mu ni xaji sawul insaan ila asaan mu daal di indi ayib alxuraan bi